waa àdduna yéen waa Sénégal ak diaspora bi ak réew mi yëpp yéen ñiy seetaan biir vidéo maa ngi leen ñaanal man mama Aïda Moussa Saliou yal def ci ak ak tal ba ngeen ko di ci mama defe naa ni réew mi yëpp seede nañ ni yow yaay seetkatu seetkat yi ci mi ak. TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29. yàlla ak yàlla ñii ñoo gën a xam li ñuy wax. billaahi seega nag ma ak sama moroom a ci yam ku ci ne da ngay wax far mais ku ne xam na ni li ne ci boppu ngir euh, rëg-rëg bi ci bëree buñ ko xaajal dix rëg-rëg yorul cinq yi laa la wax kii yorul cinq yi Gris 2 yorul cinq yi ñoo leen gën a xam li wax. combat bi mu bëreeg Ablaye Ndiaye combat bi mu eh, Elton barki pakala bu mbuur billaay walaay wa tallaay bu doon reug reug du sax mat 5 minutes mbeur mi ñew di bëree ni comme ni ñu doon bëree giri de Ablaye Ndiaye li bu doon giri de moom dem ba doyel ci combat bi rek mais kon giri de du ko musa daan giri de ay kaleem wu ci bëri billahi walaay kalay yu wu c'est yor na dolem di map dolem la yor di map xam nga boo euh, boo amee doole am na action yooyu def mbër mi te gëmu ko day jàll mais dooleem jooju suba la koy réer te làmb ji dadul doole rek te te rëg-rëg dégg dégg liñ wax bu mu leen wax bu am sens dama ay ci ponkal waaw loolu loolu loolu moom rafetlu naa ko baax dundu làmb dafa neex lool ndax fii na ñii li ñuy waxit ku ne am nga ci droit ka nga faral wala na jàmbaar nga waaye tamit ñu indi ñëpp ñu ñu jàng ci ndax léeg nga gis ñaari mbër yu bëri yoo xam du ci du ci mbërum kenn mais da boo dee dund làmb ku boo xoolee ay vidéo am rek da nga man am loo jàngat ne kee gis naa foor na ci lii wala jàmbaar la ci lii waaw ndax rëg-rëg musta defet ci bëre dóor bi kee musta am ci bëre dóor kon ñoom seeni vidéo neex naa kii ndax boo ci indi rek day boo xam ne victoire lañ ci amoon bu ko dee nga mën a xam seeni kale Eh, ñu mën ci waxtaan xam nga ki dul sa sa mbër pour nga wax ci moom day jafe lool bu fekkee yow nag Modou mooy sa mbër boo ko siiwaree da ngay xam ci moom lu bari ma bu fekkee man comme Balla Gaye mooy sama mbër damay xam ci moom lu bari waaye ñoom ñaar comme ko daanaka mën naa ne la euh, dañ leen faral waaye ñi ne ci groupe bi ñu ci bari daanaka am nañ feneen far mais ñaar ganaar buy bu ñu xeex sax il faut nga am koo faral kon nag da baax ñu indi yëpp pour ñu mën cee commentaire mooy waral affaire bi neex waaw mais nag Mamadou euh, Ablaye Ndiaye du rëg rëg rëg du Ablaye Ndiaye mais Ablaye Ndiaye mbër la rëg rëg mbër la comme mbëri rek te Ablaye Ndiaye gën a diis sax Ablaye Ndiaye rëg rëg mi est mu que jëloon Ablaye Ndiaye arène mën na koo daan si biir arène waaw que mën na koo daan dafa raar rek mais bu continuer woon mën na mën nañu koo déggaat feneen xëy na kii da koo daan rek mu def ay enébranche am waaw dañ leen seet loolu xam nga Sénégal moom liñ gën a xam mooy kuy kuy kuy bëree daan rek dëgg rek champion la rek rek champion la même sans waajooyu supporter Balla Gaye boobu maa ngi ko dégg mu ne yaram bi sax day bëree ni Balla Gaye di bëree lay bëree mais rek rek sax bokkul si ñoom xam naa ne ñëm maasal mën na dàq bëree waaye bu demee tuuti ba commencé daje gaay ponkal yi si kaw ñu xam ne lépp lépp dëgg la te sax combat bii man dama gëmoon mu génn si. ay saa yi man dama ko seetaan. man am na mbëri yoo xam ne dañ may intéressé spécial damay dugg seen i vidéo di ko seetaan normal laa la seen man du ma seetaan mbëri coono lu leer laa la wax la may wax rek même bal mëdloo nii mëdloo ban koy wax mëdloo mëdloo mëdloo laa leen mëdloo de ku ko amul mbër dëgg dëgg mooy moo koy ñemee daan ko mais mbër bu ko ñëwul doo ko daan kooku man maa leen ko wax man moom wax dëgg yàlla Balla Gaye mooy sama mbër mais Reug Reug bu dintul nii bu at bi suuflee la gars yi di xam ne lépp rek man moom wàllu lamb laay waxuma ay far man bu far dee Balla Gaye laa far Balla Gaye ma de dee moo Balla moo mooy sama mbër waaw Balla moo jaral lu ne lu ne Balla Gaye jaral na waaw waaye Reug Reug ma gis nii li muy at li muy wax nii sax du ko appliqué at bi des la mu dox ndànk waaw cokkaas di dox ndànk te fu mu ñi ngi wax mënut a xeex mais ah yow Elton boo gën a ñemee encaissé moo gën a ñemee xeex Jordan moo gën a mën a dóor foofu ñi ñi gars yi di wax ay yéen waaw yow si gars yi dañuy fon waaw waa ahlul làmb maa ngi leen di bëgge di leen ziyaare waat di nuyu kull ku nekk ci kër gi rek waa di ñëw ci combat waaw man moom maa ngi fa ma nekkoon ba léegi euh, Reug Reug Gris laa jox favori Armé Thiat Armé laa jox favori Koen si Diène cinquante cinquante la ku gë ku gën a jekku ci bis bi rek yaa moom combat boobu <coughs> waa euh, Reug Reug moom champion am kenn werante wu ko waaye man ba léegi damay insister si ne ñi mbapat ak Reug Reug bëre wu ñoog Reug jëluñu intention daan Reug Reug ñoom ñëpp dañ koy mootu ba mu daan leen bañ naka ba bu Reug Reug euh, nekkee di participer si mbappat yi da ngay gis ne champion yu bëri dañuy daw duñ nangoo te ñëw ci lutte simple bi di wut ay gàllankoor di lay rek mais rek rek mbër yi bëri wuñu ak moom moo tax duñ ko mën a daan eh, comme li waa ji wax rek man daal euh, contre ma mun bëre moom kenn weddiwul ne mun na bëre mais man dama eh, damaa seetaan ne mbër yi muy bëri ñeme wuñ ko du ñu bëre moom ñoom kum ci am da nga koy mootu da mootu di mootu di mootu ba mu daan la mais doo jël benn intention pour daan ko te Gris 2 moom gëm naa ne du ko may loolu en tout cas daal dina neex moom. waaw loolu dafa leer rëg-rëg daal li daal Modou ci ponkal yi moo ko dal ci biir euh, mbapat bi gis nga Modou yi muy am dañ ko dul ñimee bëreeg moom pour ñoom lépp lu ñuy def rek Modou da leen di daan dem yoonam rëg-rëg nag nit simple bi noonu nga ciy def yow imaginer kañ ngeen nga gis rëg-rëg dugg ci euh, bokk ci tournoi boo xamante ne wóbbali da ciy bokk Euh, njal Dione bokk si euh, kii bokk si euh, Franc ponkal yi bëri bu dëgg-dëgg ñëwee dañuy bàyyi duñ duggati ci làmb ci bi mu demee états uni gis nga leen dañuy wàcc si mais gis nga bi mu ñibbisee commencé bokk si tournoi ñoom ñëpp dañoo toog xaar mu mu légaliser combat ñu commencé waat di wàcc si moo tax ñimewuñ ko duñ ko daan gisoo bébé jën li tax mu koy sonal daf ko ñime Euh, général Malika donte ñaari yoon dañ tase mais man première ba seetaanuma ko mais bii ma seetaan dama da nga gis ne daf ko ñëw imposer ko ragalu ko moo tax mu am ci moom dara mais à part ça ñooñu ñi ma gis ñëpp dañ koo ragal ñoom Franc ñoom Obali ñoom caaka ñoom ñëpp duñ bëreeg moom dañ koy mootu bam daan deel <laughs> Gris 2 Reug Reug ku ne mën a daan su morom <laughs> na nga mu suma waa kuul yaa ngi am jàmm marhaba Zende marhaba biikum waaw ah noonu la rek <coughs> gars yi moom ku nekk la wax xalaatam rek lam moom reenu ñaam bi <laughs> ku ne mën a daan su morom ku ne mën a daan ñoom ñaar ñuy daja de xeex bi mën na bañ bëre de <tsk> suñu yaakaar daje lay jeexee ci lay jeexee loolu ji mu gis ah jàppante lay <tsk> <tsk> na jàppante daal comme ni ngeen ko waxee rek mbappat yi bëre bu ñëwee passe bi rek gaa yi gaa yi bëri dañuy ruux ñu bëree ruux i bisu daanu bu jotee moom xoolal dangay ngay daanu bisu daanu bu jotee day daanu mais Gris 2 dàq ko dàq ko ko bëri mais bu waree daanu day daanu mais Gris 2 moom ëpp ko dara dàq ko bëri non loolu moom dama koy bañ <laughs> non su waay amee réew de c'est dëggoon li mu la wax li <laughs> mu la wax seetlu bu baax lu mu lay wax dëgg seetlu bu baax la mu lay wax Bébé Diène amul day day téye rek rek moom su ma xam day téye rek rek du xam lu mu koy def bu ko rek jàppee du xam du xam lu mu koy def gis nga bëri katu yëpp di bëri rek rek fii duñu jàpp rek rek du ñu am pexe bu ñu koy daanee ñu taf ne foofu di di lool lool loolu loolu moo dul bëree loolu bëree boobu man bu nga bu doon rek rek du nga sax setaan bu doon rek rek seen bapat boobu noonu du nga sax setaan te di di di di di di di di bàkk gisoo gisoo gisoo gisoo bu mu jeexee rek rek dafa mer lam tuñ ngay wax bébé jën tey di di bàkku bu mu jeexee rek rek dafa mer bébé jën bëriwul boobu gaa moom moom boobu moom saa waay bébé bébé jën bëri bëriwul bu mu bëree bu mu ñëwee bëree di dëgg boppam rek rek dëkk daan daan bu ñaaw setaan vidéo boobu si kaw gaan bi dugal gaan bi vidéo boobu mu dugal dama setaan ko daan bu ñaaw rek rek daan bu mu mer wax de xanaa teg rek rek loolu taxul rek rek mer de rek rek lim ko bëggoon def moom la ko deful looloo ko metti lim ko bëggoon def loolu la ko deful gis nga euh, man dama leen di topp euh, sama waay mu ngi naan ma mu ngi naan day yor saagam di leen topp mais man xoolal semaine bi mbapat bu am boo ma laajee ku ko jël ma wax la ko mbapat bu am boo ma laajee ko jël ma wax ko ko ma wax la ko xanaa kay ma jàpp ko fàtte ko mais mbapat bu am samedi dimaas dama koy seetaan léegi YouTube bi dara mënatul la ci réeral man bañ naka ba man WhatsApp laay def YouTube jeex na awaatuma la leen ci téléphone soxla lu mu dugg ay fies ak yi yëpp du ma ci dugg loolu laay topp te dama leen xam Ablaye Ndiaye moomu ngeen wax noonu dama koo xam bu baax raw gàddu bi mu njëkk a bindu poussière bi mu njëkk a jël bëri naa ci poussière boobu sa deuxième année ba mu ñëw binduwaat raw gàddu jëlaat ko bëri naa ci raw gàddu boobu man xam naa leen bu baax a baax a baax. <laughs> non dama supporteeru Reug Reug sax. mais combat bi laa analyser rek ak ñi ma gis gis nga bëre man bëre damay jàppe mbër mi ci ni muy jàppante ak adversaire ak action yi mi daane ko rëg-rëg góor mbër yi di ja bu dee bëri rega bu dee bëri rega bu dee wax ci mbër yi dàq bëre ku farul laal ak ku muy sa mbër ak ku mu dul sa mbër man Modou loo mooy sama mbër ku ne xam ne ni Modou Lo dàq ko bëre yomb Baba euh, Balla Gaye dàq ko bëri yomb ñooñ bu ñuy wax si ñu dàq bëri ci làmb ji si ñooñ la ñuy wax mais dama ni la rëg-rëg laa la wax bu doon maanaam ñi dàq bëri ci làmb ji cinq personnes la cinq yooyu du ci génn pour muy leer ak li mu wane nii ci làmb bu dee ku xam bëri rek leneen ak leneen la quoi mais bu dee ku xam bëri rek ak ku xam ku bëree lan mooy bëree man ay kale n'est-ce man ay kale noo bëgg a daane mbir daane ko ni rëg-rëg lépp lay def rëg-rëg lépp may bëri billaay wala